bul tiit bul ragal bul rab ki la sant fi mu mës a taxaw moo ko sant Serigne Saliou lay waaj moom lay waaj moo la tuddee soxna Ndiaye sa bés bii sama nga ni sa doom insisté leen ci sama waa ji dee leen insisté ci moom liw bi liw bi ngelaw li sama waa ji maa ngi ñëw rek ma daan kii Babou Okay. Viande. Viande dama ne kudd yëpp kudd la waaye kenn kudd kees luus. yow mu yaay kudd luus. kii Youssou Ndour dem si xew bi maye ko. waaw moom biir biiraan eh, ak yëpp yëpp xew bi bëri mhm. xew bi bëri coow trop coow li. am na coow. ah dafa am coow. waaw dafa bëri coow réseaux la. réseaux sociaux yi déggoo ne ma la papa. Mhm. mooy Bouba Ndour. mooy Youssou Ndour. Bouba Ndour. ah. di ah ak ni mu toll ci Sénégal. donc nii la mën a demee. noonu rek la mën a demee. ku ne def nga li la war nag. léegi leen la rek na Sénégal bi yëpp ñaanal suñu suñu doom bi ah, yàlla bàyyi ko jëkkëram mu am ci ay doom yu barke ndax sëy moom loolu lañ ci ñaan ñu yàlla jàmm yàgg mais grande est-ce que ànd ak Viviane yomb na liggéey kan liggéey yomb na yomb na parce que moom déjà ni mu jàppee groupe am man Viviane naa ci moom comme ni ma yàggee ci suñu mais moom ñëpp la doomoo ñëpp la def ay ay rakkam ñii ay rakkam ñii ay doomam moom muy tabaski korité alalam lay jël di joxe di jox groupe yëpp nag jolof bàmb donc Viviane dafa neex a àndal nit ku baax la lenn rek wane na ko mooy ñu xew bi toog une semaine mi ngi xew mooy chaque jour ñu gis nit ñi nag kenn moomu leen. looloo tax mu nag mu bëri polémique ñii naan dañ ko woo tribunal ñii naan dañ ko kii kan bi yëgoo ko. yëgu ma loolu kon hmm. tribunal. donc ah. jàmm rek lay am dañ ko ñaanal jàmm ak salaam. Ah, kon loolu du dëgg. du dëgg de man mi buñ ko woowee tribunal maa koy demal. ah, ah. man waaw Pa Moussa. nañ ma jël si man. waaw Pa bi nga bi nga nekkee si ba tey bi yi ñu ngi def dara di way ñii di tëgg ñii di def. mais gisuñu la si way gisuñu la si taasu gisuñu la si dara. mbay man euh, je touche du bois mais dama xaw a à part. man dama jàng aar. ma artiste pare doon directeur ballet national du Sénégal. man dafa am loo xam ne dama jàng aar man métier la ci man. donc man am naa lu ma doy sëb. bu ma ci boolee waaye xaw ma fi mu jëm. ndax jamono jii ñu wax maa nga Sorano théâtre national Daniel Sorano nekk fa directeur du ballet national du Sénégal am liggéey bu bari bu ma wax place boo xam ne sa papa fa nekk ñu xëy jox la ko donc am na lu ma wax lu ma woykat mm-hmm. mais artiste laa ñu gis ne Pape Moussa bokk na ci fecckat yi nga xam ne moo dàq fecc ci réew mi fii mais ñu ngi ci fin carrière ci mhm. ñu ko mën a waxee Pape Moussa tey da nekk fecckat boo xam ne ñëpp ràññee nañu international mhm. est-ce que tey Youssou Ndour bàyyi way Pape Moussa day continuer ci li nga xam ne ko fekk wala day bàyyi ko Youssou boo ko déggee mu way da wax sax fin carrière ndax da ngay xam ne kii artiste déjà Youssou rek laa wax man comme ni ma la ko waxee sax dafa am boo xam ne doon ko jigee ma nekk ballet national doon ko directeur donc man maanaam am na loo xam ne moom sama loolu laay doxal ñun su yàllaa ñu boole te xam naa ni liggéeykat la te liggéeykat la soxla donc moom it dañ ko ñaanal tudd fan ak wér te yàlla bu mu sa bàyyi. Hmm? ah oui kooku nu mu ñuy bëggalee kooku dañ koy ñaanal gudd fan rek. muy waay rek jël waaw waaw mais kooku li mu ma ne bii ngeen gis génération bii moom lañ fekk mais am na yeneen ak yeneen yoo xam ne lu ne. ci way ja euh, desalu ko dara def na lépp ci àdduna way na dugg na fu ne ndax way am na lu ne ndax way trophée yi ñëw na te di des na yeneen ak yeneen parce que liggéey la mais ab daal du musée maa du def dara